ñun ñëpp ñu seeral ko ngoram ak bëgg mbokkam ak pas-pasam sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa bu dëgg ku mën ku mënut da nga ñëw teewee ko ngir barkeelu ci moom ku ñuy ñaanal la waaye ku ñuy ku ñuy ku ñuy ku ñuy def tawassul ci barkeem la ndax dundam gépp da koo jeexal sëñ Tuubaa jeexal ko ci alxuraan li ko sëñ Muntaxaa seeral rek doy na nee na moom nanguwut koo gën a bëgg sëñ Maam Mor waaye moom wóor na ko li ñëpp bëgg te kenn ku ne ko wut muy dem àjjana moom ne wóor na ko sëñ Maam Mor nga àjjana loolu ñëpp